يا من خلف سيدي Aleluia. موسى الباب فلتدخل Obrigado. شيخ مصطفى بايو سليم فليو بايو سليم بارا بايو سليم قسم سنواني بنغان سني بير يونا نيكو بيرمان يونا نيكو بيرمان سني زمان بايو سليم بير بايو شيخ عبد الأحد بايو شيخ عبد الخادر bàyyi sa sal bàyyi sa sal su wañu mbinganu fagul Ahmadu Bamba yaa jële yëngul ma nangul xalaadaay sa Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba Borom Tuuba amul la bu del jóg rek na ci min lam mudu ban ba na jagan am sa sen akla amul lam dendam amul lam dendam sin na ci min lam rek na ci min lam mo na jagan waqtala ala sa ahmadu banke rek na ci min lam ahmadu ban ba mo na jagan lam sa Hallelujah. Ahmadu Bamba moo ne ca kanam waxi Bamba baax moo amee xar baax su dee may baax ñoo jël saare waxi Bamba baax Seex Isa Jeen su jiidi waa daan su waa daan su gan tukki Seex yi ka masuñoo jeexal masuñoo jeexal baaxal sëñëram Bamba Seex Mudu Lo Dagana masuñoo jeexal Seex Mbàkke Busu Gele baaxal di Touré barikal Seex Moodu dem njaare sëriñ jindi si na baax Abbas. Yeah.

Murid Baye Mbacke Fall Baye Ngounda Fall Baye Assane Muslims. toroyukaay. Ndeye Diba. Daawul di

المصطفى سعيد مدنا ما الخاتم ما الوسيلة ما الوسيلة مصطفى ما نسيت كيف ما لقب borom Touba borom Njaareem Xaadimal Mustafa xayrul xadim Sëriñ bu mag Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa borom ñibbisi gu mag bi borom jumaa yu mag yi borom màggal gu mag bi borom weeru safar borom masalikul jinaan Cheikh al jundi kebbinɗa jundi cameron jundi gabon jundi mayonma jundi limbar waɗi ga julli ca bato ba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba murid yi jóg leen màggal Mbakke mooy borom jumaa ji borom Tuuba yaa seete ñépp kaw ku làqu fi yow raw buur yàlla yépp naw sunu bu Sëriñ Bamba Sëriñ bi yëpp a naw sunu bu nun murid yi bu nu lay bégee nga di nu yéegee nu di la jege kon kay guddi murid bégeel ma Bamba nun murid yi bu nu lay bégee nga di nu yéegee nu di la jege kon ngay juddi murit bégil ma Bamba nun murit yi bu lay bége nga nu yege nu di la jege kon ngay juddi murit bégil ma Bamba nun murit yi bu lay soppu jara joxu bopp joxal ma Bamba nun saa yu nuy sellal nga dinu taalal sa loxo alal yaa ji gaaw Bamba Xaadimu Rasuul أكبر خادم الرسول بل سياجر جخل يا كي جر خول خول المبامبا برم تبا موي رو كاي بي خادم رسول موي لقواي بي موي سبب ربي أدنبي بامبا sëriñ bi mooy raw xaay bi xaadim rasul mooy la xulaay bi mooy soppe bërëb bi ak nabi bamba mul keeki malakoot jiglu fa taaxoot kenn nay ki xam sa mooy sa borom bamba nun bu lay fonku ngay sunuy bank yow murit bi gaawal say tànk daw jëm ci Bamba nun murit yi bu lay fonk ngay sunuy bank yow murit bi gaawal say tànk daw jëm ci Bamba yéen ñaar niroo ngeen Bamba sëriñ bi Muhammadu Rasulullah ñoom ñaar niroo nañ ba ci jikko dañu daa jokkoo ko mën ngeen sa ko dëkkaaleeg Bamba rasul yàlla la taaral yàlla la teral yàlla la yàlla la faral faral nu bamba sëriñ bi ñëppam la te xel yéen gaay am xel te ngeen a jëmu xel daw jëm ci bamba xaadimu rasul kumba ko fa Tuuba daawul xëyee Tuuba jëmba ke ba Tuuba be na Sëriñ Tuuba mi la jël na sunu réew mi keroog la gaal gay daw ba wàllu tisbaar Cheikh Bamba di jàpp am bu sew digg dal fay jaar dal di dal di amaat ba muy masa ba dam ba ko nit du di kon mu takk waaye mu far baal ko gaa yu badariya ñu ko baal ñoo ko boole darab baal gaa yu badariya ñoo ko boole darab baal lal ko ca mbeex ma dagala dagala dagala te dimbali ca barab ba keroog la daal di jàpp julli tisbaar badire maamu lii doy baax lu baax du fi Tuuba moo weesu baax yor yor na gaal gi di jëm ko naa jëri di sib di biir ja noonam yanaa giri giri te takkusaan la gaal ga ba jonaata ba mu marañay konte keroog lu ci fi gis kurmaana ak ci bi ne kurbooy ñu ne wi maana mu jël lu doon waa waa kibirun sa dari la wàcc gaal gën a fa waxtu la taxaw tubaab yi mu deqi ilaa ko naa kiri tubaab yi ay sot ñu di la gaar gi diri fii garab fan la yam ilaa la bisa foofee la daam wàcc fanaan bi sewli foofu poste bu lëndëm la sore naag baafale mu delluwa ca gaar ga jaari lu mee yaa di buntu di xëy jëm ndaw mi setee Cheikh Bamba xëy jëm ndaw mi romb li ngoos ah, ca kaw tubaabe yam ca moo wax Cheikh Bamba wuy moom te musul ci waxtu ku nga français ak waa gaal bon waar romb na leen bu yàgg moo doyu waar yusu bala naan ko mbindeef nga am yaay ka bind keroog nga daan jàll ba dem Maamba bisu ba naan ak booma ndak Samba bisu keroog la ma ci posub lu di ma ji dëppi ni duudu ma mbay yor di leen duma foofee la fekk ka ñu wax balees mu naan ko yaay balees ab yaay iblisa mu naan ko maay balees ab dowaaj la dinaa la dimbali ndax jaamu bañ la balees fonde yére yi Seex Bamba ya yóbbulu di ma ci kër ku ma nañ ba di dara yu duma balees rootol na sëriñ bay xandi ana ma seen waa gaal ga naan ba mandi balees jox na ma koy boole ki langa boole ki daaw Seex Bamba guru sàngar di ree tax moom balees mu wat lu tax daf doon liggéey Bamba ma jëy sa sin wa nga ne dëgg kay wax ma bay duudu nga naan ko Bamba tey nga xam ne bayu du suuru boy Bamba naan ko ndaw du bal am saamaan leen ko buusu buusu géej tey saawaan duudu nga naan taay taay nga xam ne ko bu ma duutoo ma su mbaayam sëkkantu ma ko jox ma daay ma ngir ma kanaan ko ko jox ma daay ma ngir ma kanaan ko doxal foo geesu gis ma gis baari jeewal lim defar ci diine kenn mën ko lim xam yow mi diin gis baari jeewal lañ ko jox daymaan gis baari jeewal lañ ko jox ansaariya ñu jox leen Cheikh Bamba ñuy ansaariya gis baari jeewal fu xam ba tam maa doole Sëriñ Tuubaa dira suwaari jeewal ku dem fa pii ba xam ne borom Tuuba du maasum géew ba tisbaari jeewal la murid yëpp bi mettit ba muy dem ca géej ga dana maam Cerno maam Cerno maam Cerno murid ana ko sama Cerno Ibra Faati borom Daaru Muxti dana maam Cerno waxal murid yi nan dëgërlu tisbaari di magam ba noppi jibal ko jëmmam jeewal moo dal waa déedéy di wax ne sax man du mel xabaanay teel bu dul dey tisbaari jeewal moo waral daaru salaam ak gaawaan kër seexan ta yaa ngay baawaan tisbaari jeewal moo waral sëriñ Masamba sëriñ bi naa Masamba laa samba tisbaari jeewal moo waral Xadim dine tànki sunu maam Cheikh Abdou Rahmane Ndaam tisbaari jeewal moo waral waa kër Cheikh Massamba Diop Sam di yóbbu addi kumte ngir Cheikh Massamba Diop Sam tisbaari jeewal moo waral waa kër Cheikh Issa Diène di yóbbu addi yey maam Cheikh Issa Diène tisbaari jeewal غور سلكو غير فال خلم غفيس مي بنغير مام سيحيا كو مري تشي ديوان لي بري ابو رجال كيوي كوكور يب يم فال خيفال شيخ ابراهيم فال شيخ ابراهيم فال شيخ ابراهيم فال انا كنت ابو قابل مام شيخ ابراهيم فال jëm moom fa la xeefaal jabi faal ak jara njaay ceri galeen ca lañ la jaay abu maam seyna bu njaay Cheikh Ibra Faalay abu rijaal sëgg been sëgg been jil ba lanaa ba ma foos Cheikh Ibra Faal fépp lay seen ku di murid déglul ba wax la waxi maam Cheikh Ibrahima Faal ci diggam ak Cheikh Bamba nga xam ne Cheikh Ibra mii mooy borom aal Cheikh Ibra Fall leena la ñaar Cheikh Ibra Fall la ñaar ba leer ko jolle sama foofa la jaar moo tax ba sëriñ bi dëkk njaareem leer gi war bawal ñu di ko yem Sëriñ Moussa Cheikh Ibra dana faal mu ne ma maa njëkk a ci nana waa kër gi bàyyi wal naay soq di rooti di wal booleeg liggéey di ko joxe jaaraama Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridin kon na képp kuy murid ku mu mën a doon jërëjëf jëf yàlla ko yàlla nangu bu ko yàlla nangu ba noppi sëñ Xaadim ñaan teel na mënu koo bàyyi ndax mbokk taalibe bi yëpp yow rek la ñuy te ñoom ñëpp ñëpp ñëpp dañuy bëgg sa jëmm ji